bénéfice yi nga xamante ni da ko bañ a wax chiffre d'affaires yi nga xam ne da ko bañ wax loolu li ngay gagné de toute façon perto yaa ngi gagné loolu soo ko jëloon nga investir ko fii nii Sénégal par exemple ubbi entreprise dafay usine pour mën a industrialiser jéem a exporter est-ce que gënu par exemple yow à chaque fois ngay ngay ngay dem euh, di importer ay affaires yoo xamante ne xaalis Sénégal moo si fuité est-ce que loolu nekk woon euh, bonne démarche boo xamante ni moom moo gën. Ah, nga xamante ne di nga si gagné Sénégal dina dina si. xanaa xamoo ni man ci démarche boobu laa ne yow boo suivre sama. fi mais depuis temps wu Senghor Abdou Diouf ba léegi. waaw dafa tànk tuuti dama lay wax ay kii yu leer. yoo xam ni mën nga ko fàttaliku. 2003 ma bi ma demee bi ma li ma wax ak moom bi ma paree damaa taxaw ci perron bi ak journaliste bu ñuy wax Abdoulaye Bari bi nekk RTS wax xool li nga xam ne moom laa fa doon ñëpp di est-ce que dama fa dem pour casquette importateur dama fa comme ah. avec casquette importateur dama fa dem comme agriculteur mhm. j'ai défendu l'agriculture les agriculteurs ni ñun war nañ mën a autosuffisance en riz te plantation mooy sama liggéey mais 2017 Macky Sall waxoon na waxoon na impo euh, autosuffisance waaw autosuffisance man lu ma ci wax man ba mu ko waxee mënul nekk du am ñu naan dama leen ko parce que yéen a ngi ko di importer non ci yoon xam nga yow fekkoon ne di importer loolu nu muy amee. importation boo ko deful nit ñi de yow xa yow. non mais dama ne bu fekkoon amoo loo lekk nga ne par exemple yéen. Hmm. ñi nga xam ne yéen xaalis di di importer da ngeen si agriculture maa même ba pare rek ngeen soutenir agriculteurs yi nga xam agriculture locaux yi fi nekk hmm. euh, jéem a subventionné ñeneen ñi yéen ñi nga xamante ne da ngeen di da ngeen di importer euh, que ci riz bi surtout est-ce que dinañ dem ba nga xamante ne après dañuy jéggaani ceeb du ko andi fii Sénégal boo déggee sama discours dama ne dañoo ñun Sénégal waruñu ma wax Abdoulaye Wade li ma ko wax dama ne ko fa Sénégal waruñu continuer di importer ceeb te nekk pays à vocation agricole war nañ mën a bay ceeb am nañ suuf am nañ jant bi am nañ ndox mi te Sénégal Richard Toll gi doon nañ fa fay ceeb boo xam ne moo gën a neex ceeb bi jóge Indochine mm-hmm. donc dëkkañ nañu sax nañu ko développé rek buñ ko développé jàpp ci dana mën a am autosuffisance en cinq ci kaw ñu fexe nu ñuy organiser importation yi parce que li ñuy importer bu ñëwee di concurrencer déloyalement l' importation la production locale mais production locale bu mën a jóg léegi nag bu ñuy indi lu yem ci li ñu soxla rek ñu koy indi li ci des ñu fexe di yokk suñu production te ñi ñuy jox ñuy importer mooy ñuy jàpp ci mbay mi ñuy jàpp ci mbay mi ñoom la ñuy jox ñuy importer su ko defee bénéfice bi ñuy gagné ñu mën koo investiraat ci mbay mi kon yow li ngay wax moog li ma benn